ànd ak délégation bi mu ma dikkee di président bi bàyyi ko ci la soxna Kineloo ak ñëpp ñi nga xamante ne la àndal man Awa Fall présidente des femmes derrière Alla Sylla responsable des femmes derrière Alla Sylla moom moo ñëw di sant sa sant euh, Baye Alla Sylla bu baax a baax a baax bi nga xamante ni moom la am ba jiital ma ci kanamu ay jigéenam waaye maa ngi sant waa këram comme ñu fi jaar niñ ko waxee bàyyi àll bu yaatu woon te waa këram yaatuwuñu kon tey duñ fa mën a dugg kon ñu ngi koy teg ci loxo aji jaxate mu jàllale ñu ko ci waa këram yëpp ak ay goroom ndax ñoo yaatal kër ga maa ngi nuyu nag jàkkaarloog sama jigéen ñu baax ñii sama maire groupement yii nga xamante ne bi ñu dalee ànd ak léegi mat na ñaar fukki at ñu ngi leen di sant di leen gërëm fu leen woo ngeen wuyu ñu sonnu leen tàyyiwu leen kon ñu ngi leen di bu baax di gërëm commencé woon nañ doon lim ay tur képp koo xamante ne dégg ñu ci tur tamit xamal ne yaa ngi ci biir ndax lim yombul ma ma dellu si waat bu baax ba léegi tamit ci délégation bi bàyyi àll àndal muy Madické Dieng muy présidente président comité électoral bi ñu ngi koy sant bu baax si taxawaayam tamit te di leen wax ni tey jii sama wax tey du bëri kàddu sant rek la te di leen wax ni Madiyana 2 gi mu wër nañ Madiyana yëpp waaye Madiyana 2 lañ tëjee gis nañ mbooloo mi fi xam nañu ko gëm Baay Alla ngeen ñu ngi ñaan gëm gëm boobu ngeen gëm Baay Alla buñ ci eggee ci bisu élection yi ngeen fa fexe ba voté bulletin bu marron bi am bopp fas bi loolu mooy may Baay Alla ndam loolu mooy tax ñaar fukki bureau ak benn yi nga xamante ne am nañ ko ñu gañee ko buñ ko gañee bu ëllëgee Baay Alla lu mu wuti rek dina ko yomb ci moom kon maa ngi leen di jëfal yen ñëpp association yi fi teew sama maire yi nga xamante ne moo nañ ma jiital fa kasal ma ko Uba Ndimbe Suur ak yaa xati xuma ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom lañ ànd ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. salaamaaleykum. nañ arrière tuuti nañ arrière nañ arrière tuuti fi am gamaat bi. mbokki Madiana 2. waxal ñii ñu arrière. ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. yaakaar naa wax ji du bëri. parce que liñ fi waroon wax yéen yéen a ko waxal seen bopp kon. kaddu yi kaddu yi sant rek la ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal dëkkandoo bu rafet bi nga xam ne bokk nañ ko dëkk fii yàlla suñu borom bàyyi ñu fi ay at yu bëree bëree bëree bëree bëri ndax lépp rafet na li may wax rek mooy li ma waroon wax ci Baye wax ngeen ko li ñu waroon wax ci président Macky Sall wax nañ ko Baye nag président Macky Sall lay jàppale lu muy sonn ci politique lépp président Macky Sall lay jàppale donc képp koo xam ne Baye Alla mas na la lebal képp koo xam ne dëkkandoo Baye Alla nga képp koo xam ne mbokkam nga képp koo xam ne am nga yéene ci moom mi ngi lay xaar le 24 février 2019 nga teel a jóg bureau yu soriwul ñu teel a dem voter président Macky Sall parce que nag am na lu mu jiitaloon mooy bi ñu tollee ci bindu ay carte d'identité bi ñu tollee ci wut ay kayitu juddu wa mariana ken jiituwu leen wa mariana ken rawu leen bi ñu aussi ci retrait ko bo démé commission mariana moy commission bi nga xamné mo mo gëna mo a moo ëpp le taux boo xam ne retrait nañ ay carte donc nak li ci dess rek moy ngeen dem voter ji sen ay bureau sori wul le 24 jërul xaar ku leen jël ci bu ngeen xeyo ci ba tel dem leen dama leen di wax né président Macky Sall Touba daf ci am yaakar te président te bàyyi àll la ci yaakar lolou man mako wax. dafa am yaakaar ji Touba te Baye Alla Sylla la ci yaakaar te loolu feeñ na moom mooy numéro 10 ci Touba moom mooy Messi wu politiciens yi ci Touba ku ne xam na ne Messi lan la représenté ci football Baye Alla aussi loolu la représenté ci Touba loolu la représenté ci président Macky Sall donc le 24 février lu ñu bëgg mooy mooy victoire bi nga xam ne président war na ko am Touba te Baye Alla dut liggéey ko dañu bëgg Mariana jiitu ji dañu bëgg Mariana am 80 pour cent dañu bëgg Mariana am 80 soxla wuñu lu manque 80 donc lool nak yeen la ci bàyyi yaakar parce que wa Mariana la ci yaakar ci Mariana te yeen la ci gëna jégué yeen la dëkkal li ñuy ñaan rek moy bu mel 24 ngeen teel jox dem ba tëb sal ak Sénégal jëm kanam Mariana jëm Mariana jëm kanam bàyyi jëm kanam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sant nañ leen bu baaxa baaxa baax ñu ngi sant Madické Dieng ñu ngi koy sant di sant soxna Awa Fall bu baakha a baakha a baakha a a a ak ñimu andal ñepp suma ko tuddé mu doy di sant Aïssa Badji ci ak mo abi ñom ñi dekk Madiana ñepp mais dal mention spéciale Madiana 2 dem na Madiana 6 ba Madiana 2 tay yeen yeena a jël coupe bi ba mu da ko di appé yeen a gagné. merci yeen yeena gagné. merci beaucoup sant ay fi la gëna a ah mbooloo mi la abbé jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñu ngi sant ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax. jërëjëf Adji Diakhaté ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax amuñu fayam. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. yéen bokki Madiyana Madiyana 2 yàlla dogal fii la ma suñ borom defal parcelle ma dëkk ak yéen ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm.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 lo rek lañ ci amone lu wax ñu ngi leen di sant di leen gërëm jëre ngeen jëf man nima ko taxaw rek nima taxaw wa dekk dëkk rek ñun fim ne ni ma lay waxal ni équipe lañu def ñima andal dama ni leen ko man ma diyaana laa dem leen fenen. man man ñew taxaw waxa fi ma ñew wax ak wa koñ bi ma dëkkal ñeneen ñaar équipe yu dinañ dem tay ji ba ba aliya dinañ dem fenen ak taxaw way biñ taxawon moy fasiyene yéenee rek